asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu ngeen gisee jotaay bu tëdd bi ñoo ngi fii ci kër Cheikh Mouhamadou Fadal feggoog njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbakke ak waa Daarul Muxti dañoo jot ndigal nag ci jàmbaari Cheikhul Xadim cheikh Mouhamadul Muntaxa góor yàlla yàlla fi yàgg lool ci ànd ak wér jëm ci kan nag sëriñ Abul Baraka xalifa cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér jëm ci kan sëriñ Bassirou Mbacke moom cheikh Mouhamadou Fadal mooy jëwriñ kër sëriñ Falilou jëm ci cheikh Abdoul Fatah Mbacke mi ga xam ne moo yor kaddu kër cheikh Mouhamadou Fadal ño jox ndigal nag jàmbaari cheikh Mouhamadou Fadal sëriñ cheikh Oumy Mbacke moom sëriñ Falilou bàyyi fallu kër sëriñ Falilou ak fédération Daytu Salaam ñoom la waa njabootu cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke jox ndigal lan leen leen jox ndigal nag bis bi nga xamante ne réew mi ak bitim réew moom la ñuy waaj muy bis bi nga xam ne mooy grande journée culturelle et religieuse de Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ndaw bis bu rëy Serigne baa ngi ciy woo nag mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak wëllëre ak soppe ak bëgg Serigne Falliyu bàyyiwul kenn nag waaye nag bis bi balaa maa sori dañ koo jël nag pare ne ko ki nga xam ne mooy maam Thierno Birahim Mbacke ndaamal daarul moxti ci kilifteefu doomam ju tedd ji Serigne Bassirou Anta Niang waaye nag bis bi dañ ko jël dara jaale ko ki nga xam ne mooy alaaji Mbacke yi fay murid sadiq bi représentant Serigne Touba Ndakaaru waaye bis bi kañ lay doon ah bis bi nag samedi lay doon le deux mille vingt 2024 fan lay xewee mooy pikin ay numaan teere école 12 fi jàkkaarloog jumaay saar foofu lay xewee Serigne Cheikh nee na moo ngi ci woo mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe bay bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bis bi nag ren da ko jël mare ne ko ki nga xam ne mooy soxna Baali Muntaxa borom fondation soxna Baali Muntaxa soxna Momi Kebe mu Serigne Saliou ak ministre Mariama saar kooku waxoon nañ leen pare à vie la ak soxna Fatou Doucouré commerçante ak soxna Sofi Ndiaye Sissoko ak ki nga xam ne mooy Cheikh Yacine Doucouré ak soxna Ndeye Yacine samba bëgg Serigne falilu ak madame Ñaaña Ndiaye premier adjoint au maire ak ki nga xam ne mooy soxna Ana Ngom ca Gabon ñooñu ñooy marraine ni Sëriñ baa ngi koy yëgal tam mboolem fondation Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke yi ne ci réew mi ak bitim réew yëpp bàyyiwuñu benn fondation Serigne Fallou ndax bis bi bisu Serigne Falilou la. waaye nag balaa maa sori damay jël sama kaddu jox ko ki nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi muy sëñ Omar Gueye balaa maa damay jël sama kàddu jox ko waa Daaru Muxti ci turu Serigne Bassirou Anta Niang ki nga xam ne mooy jël kàddu gi mooy Serigne Mahamadan Mbakke waaye balaa maa soriwaat maa ngi jëlaat sama kàddu di ko jox Serigne Cheikh Jorel Mbakke mu woote ci turu mbokk yépp waaye balaa maa soriwaat maa ngi jëlaat sama kàddu di ko jox nag Serigne Abibou Mbakke moom Cheikh Mamadou Fadal mu woote ci turu Serigne Abo Mbakke moom Cheikh Mamadou Fadal Mbakke. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi yëkkati suñu kàddu di leen yëgal bis bi doon xew. muy la grande journée culturelle et religieuse bu Cheikh Mamadou Fadal Mbacké sëriñ bi di ko yëgal mbokki jullit yi mbokki taalibe yëpp rawatina nag ñun ñi nga xam ni ñun ñooy la fédération daayratul salaam te def aslamtu nafsi bi rabal alamin ci maam Cheikh Oumy Mbacké ñu ngi koy yëgal képp ko nga xam ne rek ndongo nga nekk ci Sénégal nekk ci 14 régions yi nekk ci Sénégal ñu ngi leen koy yëgal di woo mbooloo yi fa nekk yépp ci bis bi di ko yëgal tamit waa sous région bi suñu nee waa région bi du ñàkk ñu tudd ci ñu mel ni Gambia du ñàkk ñu tudd ci ñu mel ni Mali wala Guinée wala farafañe ak képp koo nga xam ni jëwrin nga rek nekk ci sous-région bi ak mbooloo ma nga fa jiite sëriñ bi mu ngi lay woo te di la soññaat ci bis bi. ñu ngi ciy woo tamit waa extérieur suñu waxee waa extérieur du ñàkk ñu tudd waa itali du ñàkk tamit ñu tudd waa Espagne waa Angleterre. du ñàkk tamit ñu tudd képp koo nga xam ne rek yaa ngi ci monde extérieur bi sëriñ bi mu ngi la ciy woo nga nekk jëwrin te jiite bépp mbooloo moo nga xam ni mu ngi aju ci fédération daayiratul salaam. kon waa banlieue bi bis baa ngoog sëriñ bi yéen la ciy delloo njukkal li ko waral mooy bis bi fukki at ak juróom-benn mi ngi koy def te fu mu ci woote rek banlieue bi daanaka ñooy jóg ñëw fekk si ko ci kon bis bi yéen seen bis la waa banlieue bi ñu ngi ciy woo bu baax a baax suñuy jëwrin suñu papa Babacar Seck mi nga xam ni moom mooy président. fédération bu daayiratul salaam suñu jëwrin Serigne Ndooy Fay ak suñu jëwrin Serigne Modou Ba bàyyiwuñu Touba bàyyiwuñu Tëngéej bàyyiwuñu kenn Serigne baa ngi ciy woo ñëpp maa ngi insisté waat nag ci banlieue bi li ko waral mooy Serigne bi yéen la ciy delloo njukkal kon bis baa ngoog bis bi nag samedi lay dëppool di nekk le 7 décembre mu ngi amee ci ay Aïnoumane 3 quartier Lansar ñu ngi ñaan nag képp koo nga xam ni yaa ngi dégg suñu kàddu te bokk ci fédération Daayiratul Salaam ñu defaat ci pas-pas defaat ci fulla ak fayda nañu ko doon defee ci fukki at ak juróom yi weesu sëriñ bi ñu dëppoo cee ngërëmam ñun ñëpp suñuy aajo faju ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Mouhamadul Basir nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikh Ibra Fati di ñaan yàlla mook sëriñ Mouhamadul Muntaxa mi nekk ci bopp njaboot gi yëpp suñu borom yàggal leen fi te wéral leen te sàmm leen sëriñ bi nag yónni ñu ci kàddu <coughs> sëriñ Basiru moom sëriñ Abdul Xuddoos ndax lii ñuy wax moo yore kàddoom moo ko waroon na ñëw wax ko waaye tey jii ñoom itam dañuy def woote màggalu Ceyeen moo tax sëriñ bi yabal ñu ne ñu ñëw ànd ak sëriñ Cheikh ummi Mbacké ci lii nga xamante ne fàttaliku la bu rafet boo xam ne jël na ko di ko fàttaliku jëmm ju tedd joojee di Cheikh bi Fati jagleel ko ko sëriñ bi yabal ñu man ak sëriñ Moustapha mi di ab taawam ak sëriñ Amsatu ak sëriñ Modou. ñu ànd ñëw ak sëriñ Cheikh Oumy eh, wax ji ñuy wax sax daanaka rek bu sëriñ Abi bu waxoon wala sëriñ Cheikh ummi wax dafay mel ni yóbbaale na kàddu sëriñ bi ndax ñoom ñooy suñuy kilifa waaye sëriñ bi wax nañu da ngeen dem toog ci kanamam su ngeen demee ngeen ànd moom ndax sëriñ Cheikh dafa def loo xamante ne day lu am solo loo xamante ne lu ñëpp di war di dund la ci jamono jii ñu nekk ndax tey boroom kër gi nu nekk daf daan wax ne ah, daf daan wax ne ñun kat sunu bàyyi Thierno li mu daj ci man ak sëriñ Modou Moussa yaakaar na duutu ko daj ci nit ba tax na sëriñ Fallou da daan jël kàddoom yu rafet yooyu daan ko wax daan wax ne ay kàddu yu diis la yoo xam ne ku ne war na caa jàngate lu bari da daan wax ne sunu bàyyi Thierno dañoo jàngal bañ na ar mu yar ñu bañ na nër mu yee ñu bañ na jar ñetti kàddu ñett yooyu nag ku ko defal nit sonal nga ko waaye ku ko defal nit defaral nga ko àdduna kon loolee nag. boo ko sëriñ Cheikh Oumy jëlaatee teg ko ci kanam mbooloo mi fàttalikuwaat nit ñi ba nit ñi mën a fàttaliku kan mooy sëriñ fàllu waaye ban cër la joxoon Cheikh Ibrahima Fati loola lu am solo la loo xamante ne moo tax sëriñ bi ñu ngeen ànd ceeg ñoom te ñu woo ci mbooleem njaboot gi yëpp fuñ mën di nekk ku dëkk Daarul Muxti ak foo man di nekk ku yaakaar Cheikh Ibrahima Fati ak foo man di nekk di ci soññi gone yi nga xamante ne ñu nga ca Ndakaaru yëpp te nekk fa ak sëriñ Cheikh Oumy sëriñ bi nee na mi ngi leen ci soññi tàmbalee ko ci Serigne Modou Kara ma nga xam ne moo fa nekk moom Serigne Ousmane teg ci ay dara Mbacke moom Serigne Dame faati waaye teg ci Alaaji Ma Fall mi nga xam ne mooy jëwrinam te nekk foofu ci Ndakaaru teg ci Serigne Xaadim moom Serigne Soubayrou waaye teg ci Serigne Amsatu moom Serigne Soubayrou waaye teg ci Serigne Koso moom Serigne Cheikh Fati Fall sëriñ bi nee na mi ngi ciy soññi mbooloo mi yëpp ñu taxaw ci te xam ne bis bi seen bisa ndax boroom kër gi kenn def koo mës sa mën a tàqale ak borom ak borom Daaru Mooti ndax moom lu mu masaan wax ak exemple bu muy joxee ci borom daaru la koy joxe bañ na ko ba kenn ku ci nekk xam nga ne boo demee ci mbindam da nga ci fekk ay bayit yoo xamante ne adduna ba ba léegi ñi ngi koy jàngate xamaguñ ko muy bayitum yu rafet yooyu mu waxoon maam Thierno mooy ba mu ñëwee daarul muhti ataytu ilal mihta fi daari il muhti li yuskiya sakwal qabdi mini bil basti amidul qisaali saabitil jaxsi amatan xalifa nada xaaliyal qasbi wal qahti bayit yu am solo yoo xamante ne moom la ko waxoon yoo xam ne ba léegi arab yi pour ñu tekki bayit yooyu sax jafe na muy arab yu rafet yoo xamante ne moom la waxoon boroom daal Muhti kon nag bu sëriñ Cheikh Oumy defee lu mel nii tey di lu am solo muy loo xamante ne nun ndaw ñi dañ cee war a jàngataate lu baree bari xam ne bunt kër yi benn rek la woon kenn ku ci nekk fa nga nekk la fa nekk sëñ ko fa def sëñ Touba moomee ko fa def nag moom la jëmmalaat tey ba jëlaat borom Daaru Muhti tudde ko ko kon sëriñ bi mu ngi ci woo njaboot gi yëpp ñu ngi ciy sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp. ci turu sëriñ Abul te sëriñ Abibu teewal ko fi. ak ci turu Serigne Cheikh Oumy ñuy soññ nag bokk yi yëpp ci bis bii nga xamante ne mooy journée culturelle mu Mamadou Fadilou Serigne bi di ci soññ nag bokk yëpp bokki Mbakke bokki Busoobe bokki Afe ak bokki taalibe yëpp seriñ bi daal nee na joxul kenn ngant mi ngi ñaan fépp fu taalibe bi nekk fépp fu mbokk nekk ñu ngi lay fàttali bis di di ñaan yàlla ñu ki ci bisimilah rahmaani rahim te mottali ko ci alhamdulilahi rabbil alamin seriñ bi daal nee na mi ngi soñ ñëpp. bokk yëpp taalibe yëpp bàyyiwul kenn mi ngi am mbégte itam ci tudd gi nga xam ne tudde nañ ko maam Thierno Ibrahima bis bii muy lu rafet loo xamante ne ak bokk loolu rek mooy li ci gën a rafet kon ñu ngi suwoo ñëpp di soññ ñëpp di séntu ñëpp bis bi ñu doon xaar moo yegg si muy bis Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké muy la journée culturelle et religieuse de Cheikh Mouhamadou Fadal nee na moo ngi koy yégal nag son excellence le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko sëriñ baa ngi koy yégal doomi boppam honorable député Serigne Cheikh Thioro mbake di kenn ci moom Serigne Cheikh nee na moo ngi koy yëgal nag sëtu Cheikh Mamadou Fadal Mbacké yëpp ci ndiital ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Thiolle Mbacké ak Serigne Ndam Fall ak mboolem daayira sëtu Serigne Fallu yëpp Serigne bi nee na moo ngi koy yëgal bàyyi ma xujja Jóob ca kokki ak waa kokki yëpp bis baa ngoog lay doon le 7 décembre 2024 ci Pikine ay numan 3 fi jàkkaarloog nag teere jumaay Lansar sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbacke nee na moo ngi la ciy woo te sëñ Fallu nag la ñu wooteel te sëñ Fallu mi ñu wooteel ku ñëw mu fat la te sëñ Fallu ku mu fat doo fanaan biti bis bi nag dañ ciy rendre hommage jàmbaari Serigne Touba yi nga xam ne dañoo bokk ci moom ñi ay njabootam ku mel ne soxna waalo Mbacke bintu Serigne Salihu Mbacke ak soxna waalo Mbacke bintu cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke ak Serigne Ateex Mbacke moom cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke ak mboolem nag ñi nga xam ne dañ leen ciy rendre hommage di ñaan sa borom dolli ci ñoom ay ngërëmal yàlla dolli ci ñoom ay leer ci barke borom bis mu mi cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi julli fi teew mbokk taalibe yi ngi leen di nuyu kenn seen tur seen sant di ñuy tur suñu Abu Baraka jëw ni cheikh Mouhamadou Fadal yàlla na yàlla yàggal te yore ko ñu jot kaddu ak cant ngërëm. jaay ci Cheikh Amadou Bachir mi nga xam ne mooy jëwriñam waaye jaay ci Abdou Fatah mi nga xam ne mooy kàddu ak njaboot sëñ Fallou gépp sëñ baa am mbégte baax di nuyu suñu bokki Daaru Muxti tam la suñu way juru bopp boowee muy sëñ Bassirou Mbacké Anta Niang moom bi mi ngi sant yàlla dina jot li am nuyoo ak cantam ak cantu nuyoo njaboot ko gépp ah, mbir mi nag dafa ne wax dañoo delloo mbatt ba ci ndaal rek borom daal bi nga ko rek mooy tuddee sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa moo waxoon ne moom lam yu xaalis nii fii sixar yi wala fi kabar yi waaye lam yu xa lam nii ñaar yëpp wax na ko dama teq mos teqi la ko man waaye mos wutee man kon sëñ nekk ma sëñ ko def ci moom moo ko jàngal moo ko yar moo ko def lépp wóolu ko tim ci ak njabootam waaye wóolu ko tim ci aw yoonam ba ba muy dem ci muy dénk ko njaboot gépp kon sëñ bi nee na fekkee ne ko baaram daaru musti xolam sedd na ci guy gën a ji seddoon seddoon na a sedd si ndax xam ne bis bi lépp dal na ko sëñ Tuubaa ndax boroom daaru mos am daray boppam lépp mention sëñ Bamba ko moom eh, bi ko sëñ Tuubaa dégg ne ko jógeen Mbàkke Kajoor nga seefo diggante daaru Mbàkke Mbàkke Kajoor bi fu mu yem nga jógee fa demaat jëm si Tuubaa xam daaru bi kon yaa fi kilomètre mu ne ko sanc ab dëkk tuddi ko Daarul Muxti loolu fekku dama ko amut loolu ko sëñ Tuubaa dara doy na ndam yi borom daaru fu ñu ko doon lim tey ba suba du jeex kon bu suñ bi suñu seex suñ suñu aboo nee na bi ko suñu seex tuddee suñ maam maam ko jox ko teg ko ci ngi ñaan mu yàgg fi te àggal naa la yi la sëñ bi yëpp ñun ñëpp ñu ànd ko moom ndax waajur la woo xam ne ku neex jaxasoon la moom sëñ Basiru mii ñun xamuñu maam Ceerno Birahim ndax suñ ko waaye bu ñu tegal ne kii doom rek da ko mën a gëm ci yu bare bari benn ba bu njëkk ba ko gëm ci kii ne ab taalibe la waaye da nga ko gëm ne julli saade ab julli dëgg ngi nii waaye da nga xam ak jëfinukaayam ak modestie gi ni modestie nga xam ne ñëpp la war a jaxasool di borom xam-xam bu ñëpp xam-xam xam waaye nag di borom yar nag ndax boo ko jëkk jëmma njëriñ njëkk yar ci la muy def lépp kon bi ko suñ seex suñ seex suñu ab sa nee na bi ko tuddee sa wayjur woowu di ñëpp nga tuddee ko bis bii xolam daana sedd waaye teel a gën a sedd kon nee na mi ngi woo bunt kër suñu tuwaay yëpp waaye di woo bunt kër yi mamoon an seen yëpp tàmbalee ci kër mam borom sàmba ci kër sama sàmba waaye tàmbalee ci kër bandu bàll yëpp la ñu ne woo ak ba ñu bokk ci maam maaram di woo yoonu murid yëpp nag yaakaar ko yaakaar sëñ Tuubaa rek ñu ne ci wàcc fi buñu ko Seex waaye ci soxna Maymuna ñëpp mi leen woo te ñaan ñëpp fi teew nee koo xamee ne mbigum suñu fàllu la nee na nga xam ne suñu Seex da ko tuddee borom daaru mooti te baram daaru ku ne xam ne moo jàng suñu fàll yi du moo jàng Seex Amadu Saa ñoom la ko suñu Tuubaa dénkoon bi liggéey bi kon bu ko tuddee bis bi bis bi kon ndonga daal yëpp war nañoo demaat ñoo ñoo wut matum taxan ngir xam borom daaru xambal suñu fàllu taal taalam boobu nga xam ne taal jàngu ba kon suñ baa ngi ci woo ñëpp dañ ci dugg bismillahi man génn ci alhamdulillahi rabbil mi ñaan nag dem ngay dikk yi yàlla bu fi kenn loru tànk yu ñu di dem ba yi ñuy desuwaat yàlla ko yàlla dafa tànk tuyaam yàlla dafa tànk tànk jégal tànk yoo xam suur la doon ne mi ñaan nag ci bakk suñu fàllu suñu seex yàgg taxaw liggéey bi ndax li li li tax nga di ko def rek xam na ko mooy sant rek te Sëriñ Tuubaa wax ne yaa rek a nekk kuñ defal kuñ defal gut kuñ defal boo santee defu ma lu may defu ma dama doll la kuñ defal gut boo santee defu ma lu may la yàlla li bari bari li wax rek waaye waxoon ne ku julli ma doll la wax ku war wax ku sant asaka waaye ku sant ma doll la kon sant am solo kon bi nga jógee ki nga xam ne moo la ba Sëriñ Tuubaa nga di ñii di bokk taalibeem nga bis yi jël bis yi di nga ko ne tey moom boo ko si tudd tudd nga yoon yëpp nag ndax village bi sëñ bi dem ci géej gi moom la dénkoon njaboot gi dénk ko tariixa bi dikkaat fekk fi dara saawu ci dara taxawu ci kon alhamdulilah rabbil alamin bu ñu ko defee kon daa mel ne bu ñu fekkoon da nga sëñ bi taw def moom ndax nee daana wax ne moom lépp lu ma sëñ tubaab ma sëñ def naa ko te sëñ tubaab musuma musuma digal lu defut ba noppi musta wuute moom musta ko moom ci mu daaw ak magam kon alhamdulilah rabbil alamin kon ñu ngi sant yàlla bu baax sëñ bi di leen jotli ak cant ak ngërëm gi sëñ aboo ngeen jot ko suñu way juróo suñu basiru te ñaan yàlla ba gën ko fi yàggal ba naa li mi naa la borom daaru mu àggal te ànd ko ñoom dama ci wax benn xese bu tuuti ndax ñu bane ko ndax àdduna lu mel nii dañu daje nit ñi bu dajee ñu bari dañuy wax da waaye dañu war a fexe bu fi jógee ñu jàll jël ci ay kàddu yoo xam ne ko jariñoo ba bis bu deesuwaat di yoon sëñ bi sëñ Amidou Diop doomu si Massa Samba loo xam nga moo ko borom daaru mot bi mu leen ba noppi dafa bind bataaxel ko sëriñ bi mhm. jox ko ne ko yital ma ko Seex Xadim mhm. ne ko fere yaa ngi noonu mhm. ni ko sëriñ Mahmoud ne jàngal naa la benn ar mu yar leen bañ nër waaye mu yar leen bañ jar léegi am njëriñ moo ko yàlla ko def ci ñoom loolu la wax sëriñ bi mu ne ko Matar Samb xam nga borom ceerno bind ci bataaxel mu ne ko ah, xamu ko de mu ne ko dafa ne fere ma ko joxoon noonu jàngal leen benn ar mu yar leen bañ nër mu yar leen bañ jar li am njëriñ maa ko yàlla naa ko def ci ñoom nee na bismillah danu seen bañ jébbuloo mu ne mu ne ku jébbul day ñu diwle ñu diwle def ñu tere nga bàyyi ñu ne waaw mu ne bu ngeen bismillah bu ngeen bëggee jege yàlla dina jàng alquran wa man arada xurba la bu ngeen bëggee nit ñi bëgg la am nañ ko loo am bokk ko jàmm bu ëllëg mu bëgg la bu yàgg la nit ñi lu mu bu yàgg bëgg bismillah lu jeex lu ngeen am ne nga jox suñu borom ndax maa ngi dugg yéen maa ngi dalay baax daane bu ngeen bëggee tiraange adduna alaxee na ngeen nangoo liggéey te na ko jaamu yàlla adduna tiraange amu fi sutura fi am doomu aadama lu farlu farlu diggante bi muy soloog sumi lu farlu farlu rafet na ci diggante bi daane bismillah bu ngeen bëggee yomal xiyaamatu akbar bu ngeen dekkee dekkee wàll dara jukaay da ngeen bari julli ci sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ Fallou jërëjëf sëriñ Seexu mi Mbàkke mi sëriñ Fallou maa ngi nuyu ñëpp di ñaan nag yàlla sama kilifa yi ah ñu dëgëral ma sama kàddu ci li nga xam ne tamit ah mooy niñ fi dajale di ñaan suñu borom tabaraka wa yal nañ ko eggale ki suñu sago di ci woom bépp fédération daayiratu salaam rawatina ñi nga xam ne suñu mbokk taalibe yi nekk ci bi ci réew yi ku mel ni bi bëgg fàllu bi ñu ngi koy woo ci bis bi ak képp koo xam ne soppee sëriñ Fallou la te mu nekk moom ñu ngi leen ci woo ci bis bi sëñ Cheikh Oumy Mbacké di woote fas yéene koo def Pikine Lamsar fa nga xam ne tey mooy lépp te euh, ñu déglu ko woo di ci woo maam euh, di ci woo Yacine Ndiaye bu xombal ak képp koo xam ni yaa ngi moom nekk na xombal bokk moom soppee sëriñ Fallou ya fa nekk ñëpp fédération boobu ñu ngi leen di woo ki seen pësteef ak seen yëg-yëg mu bàyyiwuñu kenn di woo soxna Debbo Kees ak képp koo xam ne moom la bokkal sëriñ Fallou nekk Kees ñu ngi leen di woo ci bis bi ñëpp teew ci kàttanu yàlla di ci woo euh, di ci woo Mareetu Waagu Ñaay di ci woo waa Europe muy soxna Xadi Njaay di ci moo Maam Binta Jóob Italie euh, ak képp ku mu fa nekkal te ngay soppee Serigne Fallou ñu ngi lay woo ci bis bi di woo Biige Pen nekk mu nekk di ko woo ci bis bi ak képp koo xam ne moom la fa nekkal ñu ngi koy woo ci bis bi di ko yëgal ak mbokkal sëriñ Fallou di ci woote euh, mareetu waagu ñaay di ci woote euh, farafeñe soxna nday koddu ak képp kum fa nekkal ñu ngi leen di woo ci bis bi di woo waa Tëngéej di woo waa pikin di leen wan ne bis bi seen bis la sëñ bi kat deseelatu leen dara ndax delloo si na bis bi ci seen Pikine ngir bëggal leen ak fekki fa modali kóllëre kon nag li ci nekk mooy waa Pikine yéen ñëpp yéen moom bis bi ñu ngi woo ñëpp amul tijaan amul xaadir amul laayeen ndax ñun ñëpp benn bopp lañ te lu sëñ bi mas a woote yéen a ciy jëkk yéen a mujj kon nag génn leen seen i néeg jox ko gan yi te ànd koog yar ko ay nit nag di nga am yar am ay teggin ak yéen leen bu baax ci waxtu ci doxin ak waxin kon Pikine moo aaye nag nañ delloo sëñ Seex Umi Mbàkke njukkal te xam ne deseeratuñu dara nag ñu woo ñëpp bàyyiwuñ kenn waa kër sëriñ Fallou soppee sëriñ Fallou yi jigéen soxna yi nga xam ni lu ñëw ñoo cay man kenn mënu leen ca maa ngi ci woo ñëpp ci bisu sëriñ Cheikh Oumy Mbacké bii di bisub sëriñ Fallou te bisub sëriñ Cheikh Oumy Mbacké man soxna Dabar Sarr mooy sama bis di bisu ñëpp di suñu bis mbégte kon nag maa ngi ci woo soppee sëriñ Fallou yëpp ak fu waay nekk fu mu mën a doon boo nañ la ci bis bi nga ñëw ci bis bi ànd ko ngeen ba mu jeex te xam ne bisu aajo la bisub faj aajo la. Cheikh Fallou yaa xam sa borom Cheikh yaa gëm sa borom Cheikh Fallou yow amoo morom yaay doomi Ahmadul Xadim Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer